بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñoo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dooli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñu ngi ci woon gazwatu xandaq wala gazwatu ahzab ñu ngi woon ci xare bi ñuy tuddee kundiir wala ñu koy tuddee mbooloo yi daje woon boole seen doole pour faagaagal jullit yi ci kaw suuf xeex boobu dafa am ay résultats yoo xamante ne daf ko jur dafa leeral ay mbir yoo xamante ne dafa nëbbu woon bokk na ci résultat wu xeex boobu li mu jur mooy échec bu waa Quraysh échec perte gu leer goo xam ne perte nañ ko ci am lu ñu bëggoon mooy lan faagaagal jullit yi ci kaw suuf ba ñu échecgee échec bu rëy boobu lan la leen jural mooy ñu dellu fa ñu bàyyee ko woon ak gàcce kenn wegatu leen ndax dañoo perte ñoom waa Quraysh ñaareel bi mooy leer gi nga xam ne leer na ko nañ ne yahud yi ñoo gën a dangereux ci ñi bañ jullit ñi ci kaw suuf loolu tamit dafa feeñ ci résultat wu xeex bi mooy yahud yi nekk ñoo xam ne ñoom ñoo gën a tar ci ñi bañ jullit ñi ci kaw suuf ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo loon toppoon ci kuréel yi nga xam ne ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo leen topp ci mbooloo yooyu nga xam ne mooy waa ahzab kon leer na nañu ne ñi gën a bañ jullit yi ci kaw suuf mooy yahud yi wa man taabaaha min al ahzab ak ñi leen toppoon bokk ci coalisé yi yeneen mbooloo yi nga xam ne ñoo faroon ak ñoom wa annahum yastatiuna al awda ila misli ma faalu ne loolu war naa leer jullit yi ne ñoom lañ defoon démb mën nañ ko defaat tey te sax ñu ngi koy def ñu ngi ànd guddeeg bëccëg di far pour faagaagal jullit yi ci kaw suuf chaque jour ñu ngi wax ñu ngi ñuy wan ne ñoom mën nañoo ànd pour faagaagal jullit yi ci kaw suuf ñu ngi ñu koy won ne loolu ñu defoon démb ànd far mën nañ koo defaat wala lu gën a yées loolu nee na looloo tax yàlla subhaanahu wa taala tàggat ngelawam ngelaw lu ñëw tasaare leen tas seen mbooloo tàqale leen def leen ay xaaji xaaj loolu rek yàlla wan na ci jullit ñi ne war na ñoo xalaat ne moom yàlla mooy borom kàttan ba lu leen yàlla wax ñu def ko ñu def ko su leen yàlla woowee ñu wuyu ñetteel ci xeex boobu li mu jur mooy al istidaad li qadaai ala rasi al fitna fi l madina ne nag mbir mi leer na ci yonent bi xam nay noonam xam na ñi ko bañ mbir mi leer na ci jullit ñi ñan ñooy seeni soppe ñan ñooy seeni noon léegi nag comme mbir mi leer na lu war mooy préparer nag jéem a effacer jéem fee jële boppu kéeféer gi ca Medinatul Munawwar comme mbir mi leer na ne nooni leer na bir na kon li ci war mooy nañ leen fi jële nag ñan ñooy noon yi mooy bani quraysata ay yahud lañ pour lan pour dal am ci biir Medina islam mën a ràññe nguuram mën a sax lan mooy lan moo leen di dimbali ci loolu mooy ñu jéem a jële waa banu quraysata nag ci biir Medina ndax dal mën a am ci biir Medina ndax nguuruk islam mën a samp ndax woote yonent bi alayhi salaatu wasalaam mën a tasaaroo diine yàlla mën a am kàttan kon mbooloo mi ci biir Madina genn wàll gi ci ñoom ñoom ñu nekk ay naafiq nekk ci biir jullit ñi foog ñu génne leen loolu tamit xeex bi jur na ko ci résultat yi nga xam ne feeñal na ko ñeenteel ci résultat yooyu ne xeex bi jural na jullit yi ñu def ay mbooloo mbooloo di xeex lislaam jural na jullit ñi pour ñu xam ñan ñoo ànd ak ñoom ak ñan ñoo leen noonu nekk ay nafiq jural na yonent bi mu xam ñi nga xam ne fi qulubihim marad seen xol li feebaru nafiq ci nekk te nekk ci biir Médine jural na yonent bi mu leer ko naññ ñi nangul ñi ko nangul ak ñi ko weddi waaye jural na yonent bi mu xam saxaabaam yi ñooy ñan ci moom gis ni ñu taxawee aar Médine amul woon sax armée bu fa nekk waaye taxaw nañ xalaat gas kondir bi ba sauver Médina ak jullit ñi fa nekk ñu nangul yàlla subhanahu wa taala li mbir mi métti métti métti mbir moomu zaadatum imaanan wa tasliman daf leen a yokk ngëm ak jébbalu ci yàlla tabaraka wa taala ñu nangu ko loolu mooy min nataiji hazihi al gazwa loolu mooy résultat yi mu jur suñu ñëwee nag ci min ibariha liñ ci war a tiire ci ay leçon ci xare boobu muy xandak bi ci njëkk mooy xër gi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam xër na ko ala tabaaduli ra'yi wal masuura fi fi mawaqifin asiba yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci jamonoy tartar ci jamonoy nattu da koy jural mu dajale saxaaba yi weccante ak ñoom xalaat gis ngeen loolu ci li ñuy jële ci résultat yi xeex bi la ci liñ ciy tiire mooy yonent bi ci jamonoy tartar day soññ saxaabatul kiram wooleen ñu ñëw toog ci benn pénc mu waxtaan ak ñoom ci xew-xew bi am lan lañu war a def te pourtant mooy njiit moom la yàlla yónni munoon naa wax rek nangam laay def gaa yi di def waaye da leen di woo ci jamonoy xeex ci jamonoy métit ci jamonoy tartar mu ne leen lan la ñu war a def gis nga looloo waral bi mu leen woowee comme amul woon armée buy défendre jullit ñi am ci biir jullit ñi benn waaye bu tudd salmaanul farisi mu ne ko ñun bu doon ñun la ca perse dinañ am mooy ak xalaat bu ñu aare suñu dëkk mu ne ko lan la mu ne dañuy gas canal bi ñële bu ñu ñëwee duñ ko mën a traversé yonent bi daal di rafetlu xalaatam saxaaba yi nangu ko yonent bi daal di leen di nangul ñu départ commencé liggéey bi loolu dañ koy tiire ci dars bi passé ñaareel mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam misaal bu mu wone misaal bu mag a mag a mag mooy ku tol na yonent bi nekk njiit mu wone misaal yi gën a mag bi musaarakati junudihi fil amal ci participer bi nga xam ne yonent bi bokk na kook saxaaba yi ci liggéey bi noonu naa wax ne yàllaa mu yónni maay yonent bi maay Muhammad maa fi gën dem leen ngeen liggéey dem leen ngeen gasi waaye sang bi moo gàddu pikk yi jiita di dóor gaa yi gas léeg-léeg mu jël peel bi gas léeg-léeg mu gaa yi egg sax ci xeer woo xam ne duñ ko mën a toj dóor ba sonn mu ne leen àl leen ma pëkk bi loolu feeñ na ci bi ñu gasee ba daje doj wu rëy munuñoo jàll ñu dem ndeyjoor mun a këcc ñu dem càmmoñ mun a tëj ñu gas ci suuf mun a tëj yonent bi ne jox leen ma pikk bi ñu jox ko mu dóor xeer wi génn ay étincelle mu leer nañ mu ne leen maa ngi séen sooroori Kisra yàlla wan naa ma ne lislaam dina fa yegg mu dóoraat étincelle yi génnaat mu ne maa ngi séen sooroori Kaysar yàlla wan na ma ne diine ji dina fa yegg gis ngeen mënoon naa toog rek croiser les bras comme ni ko gars yi di defee tey ci Sénégal kilifa diine du liggéey yonent bi moom bokkul woon ci loolu moom këram sax ndeysaan danaan yeewu ndeysaan yenn saa yi mu jël kuur gi soq jàngeen ne fóot nay raxas nay dàllam fóot nay yéreem sallallahu alayhi wa sallam lu tax ndax mooy modèle bi mooy royukaay bi kon kon foog mu wone njiit nu mu war a mel moo tax yonent bi sant ana liggéey gaay di liggéey mu jiitu ci di liggéey jàng nañ ci siira yonent bi ànd na ak saxaaba yi ci àll ñoo génne seen lekk war a lekk am ku ne maa koy togg am ku ne maay rey am ku ne maay fees am ku ne maay lakk yonent bi ne maay taxani maay uti mat saxaaba yi ne ko subhanallah ya rasulallah mu ne leen saydul qawmi xaadimuhum ki gën ci nit ñi mooy ki leen di liggéeyal kon yonent bi dafa wone nekk modèle nekk njiit wone ku jiitu soo santaanee yaa ci war a jiitu waaye tey da ngay gis ku woote mbayum tool nit ñi di bay mu toog ba mu neex ko mu sol yërëm yi weex tal ak mbax na mu weex tal ñëw ñuy dul ko sées bu rëy mu toog gars yi pare ngeen mun a waa mun a ñaanal naa leen yéen ñëpp seen aajo dina faju di ngeen dugg àjjana ñu ne est-ce que ñu daal di dem àjjana day mbokk ñëpp a ko soxla bu fekkoon ne ku bay tool rek dugg àjjana kon ñoom ñii moom tool bi ñoo ci war a jiitu ndax àjjana ñëpp a ko soxla waaye nag ay naxaate la tool boo xam ne ku ko bay dugg àjjana te sa jabar bayu ci sa doom bayu ci sa jarbaat nekku ci ku sant sa sant nekku ci ñeneen doo nga fa nekk baadoolo ak ñi tumaranke ak ñi jàngut àjjana jooju yomb na torop mbokki jullit yi ci xeex boobu jëlee nañ ci yonent bi wane misaal wane modèle ànd ak saxaaba yi di liggéey comme ni mu ko defe woon ci jàkkaam ja gaa yi doon defar tabax bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo daan jëli birig yi di ko yenu am na sax yenn saa yi benn Hamza dab ko ndeysaan bëgg a nangu birig bi mu ne ko bàyyi ma ndax liggéey jaamu yàlla la ndeysaan Hamza ne bàyyi leen ko daf ñuy wan ne ab jullit dafa war a liggéey moo tax gis nga ko moom yonent sàmm na jaay na lu nekk dugg na ci pour dundal boppam pour dundal njabootam sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ànd naak saxaaba yi ci liggéey mu won leen ko yëkkati ay loxoom ci kaw lu tax waliyakuna lahum qudwa saaliha ngir mu won leen ne moom mooy modèle bu baax bi moom mooy modèle bu set wicc bi ñu war a roy loolu moo tax du hasard du mbetteel yàlla ne nu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana ñetteel mooy daruratu lxazar min almunafiqin wallazina fi qulubihim marad yàlla ngi won li ñu war a jële ci xeex bi mooy moytandiku nécessité moytandiku waaw war nañ cee jàng ne dañoo war a moytandiku ñan lañ war a moytandiku ñan lañ war a moytandiku mooy naafiq yi naafiq yi war nañ leen a moytandiku bu baax ndax suñ leen moytandikuwul dañ ñuy yàqal dañuy yàq liggéeyu lislaam bi moo tax ñu war a moytandiku naafiq yi loolu dañ koy jàng ci leçon bi ak ñi nga xam ne seen xol yi feebar a ci nekk rawatina nag ci jamonoy tartar ci jamonoy nattu gis ngeen yonente alayhi salaatu wassalaam dara taxul woon waa Madina am jafe-jafe nekk ci njàqare lu dul naafiq yi ñu dëkkal kon dañ ciy jëlee ne naafiq lu ñu jara lu jara moytu la ku jara moytu la bis bu leeree ci ñun ne diw mii naafiq la dañ ko war a moytandiku dëkk ak moom xaritoo ak moom ànd ak moom bokk ak moom mbooloo bokk ak moom liggéeyukaay bokk ak moom bokk ak moom dara wóoru ci ndax borom ñaari kanam la nu ko neex mu mel boroom xam-xam yi bi ñuy misaal naafiq dañu ne bu dajeeg yow kanamu abu bakar la lay la lay ree waaye xol bi xolu abu jëhlin la xam nga ku dajeeg yow ci kanamu abu bakar waaye xolam bi ci biir nekk xolu abu jëhl te yow gisoo xol bi te won na la kanamu abu bakar nooy def waaye bu leeree ci ñun rek kooku nan ko mooy te ndiku ak ku mu mën a doon nag ndax yonent bi moonu ko sant mu ne ñeenteel ci liñ ciy tiire comme leçon mooy xeex dafa am ay stratégie xeex nit mën na cee wor ki muy xeexal nee na xeex dafa am ay yoon dafa am règle bu mu war a jaar ci préparer nit ki ci ngëm yàlla préparer nit ki ci arme préparer préparer nit ki ci kàttan ba mu xam lan moo tax muy xeex ba mu xam lii mu bëgg a dugg lu ko ci bëgg a dugal ba mu xam kan moo ko ko sant su loolu yëpp yembee nag mu jéema nag wor ki muy xeexal loolu tamit dinañ ko ci jàng ndax gis ngeen badr saxaaba yi dañoo teel a yegg ca ndox ma bi yonent bi ne place sàngam kenn ci biir mbooloo mi da ko ne yonent mu ne ko ah mu ne ko foofu baaxul place sàngam boo baax yonent bi ne ko nañ jël bagage yi kon gis nga yonent bi jamono ju nekk daf ñuy wan ne ku nangu suuraa la ku nangu ànd ak saxaaba yi ci liggéey lislaam ci seen xalaat ci loo xam ne alquran wàccu ci moom yonente alayhi salaatu wasalaam amu ci xam-xam day nangu saxaaba yi xelal ko ci mu def juróomeel ci luñ ci tiire ci ay leçon mooy yàlla subhaanahu wa taala inna allaha la yabtali ibadahu almuminin yàlla dina nattu ay jaamam yu ko gëm lan moo waral mu leen di nattu lan moo tax li yumaxisa qulubahum ngir mu xool seeni xol lan moo ci nekk yàlla dana natt way gëm yàlla yi ngir tame ngir segg alif lam mim ahasiba annaas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ndax da ngeen naan gëm ngeen rek ma bàyyi leen noonu déedéet walaqad fatanna alladina min qablihim fala yaalamanna allahu alladina sadaqu wala yaalamanna allahu alkazibin yàlla natt woon na ñi démb mu xam ñi dëgg woon mu xam fenkat yi kon tey jii tamit foog mu defaat ko su ko defee mbokk jullit yi ñu xam ne léeg-léeg nattu am nattu nag bu ñu foog rek ne ci jihaad rek lay nekk léeg-léeg yàlla nattu la ci sa borom kër léeg-léeg yàlla nattu la ci sa soxna léeg-léeg yàlla nattu la ci sa njaboot léeg-léeg yàlla nattu la ci waruwaay léeg-léeg yàlla nattu la ci liggéey léeg-léeg yàlla nattu la ci yaram waaye chaque jour dañuy ñaan yàlla rek saa yu ñu yàlla nattoo yàlla na fa fekk ngëm ndax ngëm moo mën a dékku natt ndax képp ku yàlla nattu te ngëm nekk fa rek nga saalit waaye bu fa ngëm nekkee nga am tiyaaba yi ayub alayhi salaam moo tax mu ne yàlla day natt way gëm yàlla yi pour mu seet seen xol ndax ku fa nekk waaye wa huwa moom yàlla ma allazina taqaw wallazina hum muxsinuun yàlla ngi ànd ak ñi ko ragal yàlla ngi ànd ak ñi nga xam ne ñoo ko gëm yàlla ngi ànd ak ñi nga xam ne ñooy rafetal seeni jëf ñooy rafetal seeni wax ñoo rafetal seen xel ñoo rafetal seen xol ñoo rafetal seen dëkkuwaay ñoo rafetal seen jëflanteeg seeni mbokk seen jëflanteeg seeni moroom wallazina hum muxsinuun ñi nga xam ne dañuy rafetal yàllaa ngi ànd ak ñoom kon mbokk yi ñaari tomb yi moom lañ bëggoon leeralal sunu bopp leeralal ko mbokk julit yi mu des tuuti des na yeneen juróomi tomb ci li ñuy jëlee résultat li ñuy waaroo ci bind yi waaye incha allah samedi bii di ñëw ci kàttanu borom bi ñu eggali ko incha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.